nag taalibe ngir yàlla ak yonent bàyyi leen ak sunu famille ci li ci des nu lijjanti sunu problème sunu biir yéen seeni famille parce que ñun li nu seq ak taalibe yi mooy tarbiya ànd liggéey kër Cheikh El Hadj Malick fii salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu ngi leen di ziyaarawaat ñu ngi leen di nuyu di leen jox seen wàccuwaay yéen ñëpp jiital ci nuyoo bi Serigne Babacar Sy Mouhamadul Mansour xalif général de Tidiane. ak mbooleem nawleem yi ci Sénégal yépp ñi ngi dellusiwaat fii ci kër Serigne Abdoul Aziz Al Amin jàkkarloo ak doomam ki ngeen xam ne xam ngeen sunu digganteek moom ñuy njaboot ci moom muy sunu kilifa ci biir ak ci biti di ko nga xam ne nag kenn la ci ñun ci di ñu conseiller ci di ñu encourager ci biir ak ci biti nag muy Seyda Soxna Ndey Astu Si Al Amin bintu Cheikh Abdoul Aziz radiyallahu taala anhu saa bu jamono lu mel ni ziar jotee daanu fi ñëw saa bu ñu dëgmalee anniversaire u sëriñ Abdoul Aziz Al Amin daanu fi ñëw ngir mën a tànk loo nga xamee ne que ndaw ñi surtout jeunesse tidiane dinañ ko mën a wéttilikoo te ñu bëri dañ may demandé na sa waxtaan ak moom nay bare waaye nag du tout le temps lañ koy mën a yëkkati pour di wax ak moom waaye nag occasion bu jot rek muy farata mu nangul ñu loolu kon ci gàttal dañu koy bàyyi rek mu nu ñu doo ko dugg nag ci laaj bi nga xam ne dañ ko koy jagleel Seyda Ndeye salaamaaleykum maa ngi nuyu ah, téléspectateur waa Wilane TV yëpp di nuyu ah, Sénégal di jiital ci nuyoo bi ah, xalifa général di Tidiane Serigne Babacar Sy Mansour di teg nuyoo bi ci loxo mu jox ko mbokk daaraam yëpp di nuyu Wilane yow moom yàlla ñu boole di nuyu mbokku taalibe yépp di nuyu képp kuy jullit ak jàngu bi ak képp ku ñu bokkal Sénégal rek ñu ngi lay nuyu di la ziyaara ah ñi ngi jëm nag ci ziyaara général ziyaara général boo ko tuddee rek dangay tëdd sëriñ Serigne Babacar Sy ndax Serigne Babacar moom la mag ñi ñaanoon yaakaar naa ni 1930 lu ko jiitu daayratul kiram yi nga xam ne 1927 lanu ko sos mag ña ca nekkoon ñaan ko ne ko daal dañ la ñaan ziyaara mu jox leen ziyaara général muy bis bu mag nag bu màgg ci képp kuy taalibe tijaan jox ko Tiwaawan ndax ziyaara général boo ko gisee sëñ kër Sy da ko mayoon mag ñi pour ñu ñëw feddaliwaat seen kóllëre seen digganteeg moom ak mag ñi ndax moom moo fi nekkaloon moo doon ndono yonent bi mu may leen ko pour bu ñu ñëwee diggante taalibeek sëriñ ñagas ñagas yi fi jot a xew lépp jour boobu ñu jaayante waa nag moom mu jox ñu yóbbal mu jox leen yóbbal ñu ñibbisi ah ñu ngi koy def nag 1930 ak léegi mi ngi bëgg a yàgg du ren mooy 94 ans nag du lu tuuti te olof dafa ni lu yàgg dëgg la nag ma gëm ne eh, boo tuddee ziyaare général foofu nga toftal ci Sëñ Babacar Si waaye sëñ Babacar si moo doon xalif général di Tijaan dafa am ñu ko fi mu fi bàyyi tey ka nekk ci boppu kër gi mooy sëriñ Babacar Sy Mansour ak i rakkam sëriñ Maodo Dabaax sëriñ Babacar Sy Abdoul Aziz ak seeni doom ak seeni sët ndax kër gi noonu la tëddee ah bu ñu nee ziyaare général nag ah day fekk ñun taalibe yi rek ndax nun ñëpp ay taalibe lañu loolu sëñ Abdou Aziz Alamine moo ko doon wax kër gi lu fi waaye di nekk rek taalibe ko gën nga sëriñ Abdou Aziz Alamine laa daan dégg mu naan kër gi nekk fi taalibe rek la fiy jëriñ kon nag ñun taalibe yi ziar général ah dafa nekk loo xam ne aussi ñun taalibe yi war nañ ci bàyyi xel war nañ ci bàyyi xel ndax jamono dafa yëngu jamono changé na Sénégal ngay gis tey nga ni man tijaan laa diw mii laa bëgg mu nekk sama digganteek moo may yóbbu ca yàlla moom laa euh, choisir mu nekk sama cheikh mu rabbi ah nga ni moom laa choisir moom laay jox moom laay ñëw tàllal ko samay loxo mu jox ma wér may xëy suba di lazim di wazifa di xadaratul juma waaye bu ubbee gémmiñam wax ci wàllu àddina nga ŋaññ ko bu ubbee gémmiñ jël benn position te yow xëy na kooku fa mu yegg yow yeggoo fa la tax muy wax itam yow xamoo ko ndax moom nga choisir ne mooy sama cheikh murabbi waaw kooku bu waxee lu mu wax nga ŋàññ ko jot dafay nekk nag ziar général nag mooy jour bi nga xam ne nag boo ñëwee ŋàññi ŋàññi yooyu nga ko daan def xëy na boo ca ñaanee yàlla mu baal la ko moom mu baal la ko ñu mu jox ñu sëriñ ba jox la sa yóbbal nga dem ba ëllëg ba déwénati jàmm kon nag muy bés bu màgg ci euh, képp kuy tiijaan jokku kër alaaj Malick euh, rawati nag jeunesse tiijaan ndax ñoom ñooy fekki si

mag ñi jox leen seen yóbbal tilim tilim yi fi jaaroon yépp ñu ñaan yàlla mu baal leen ko diggante ñoom ak seen wasila diggante ñoom ak seeni sëriñ ya tëdd ñu ñaan soxla yi yàlla faj ko parce que foofu fajukaayu ajo la nag ah ziar général euh, dama daan fàttaliku sëriñ Abdou ziar général dama ko daan xool nag yenn saa yi moom la gënoon a fonk ci gàmmu ndax solennité ba mu koy jox nag ku fay ñu ñaan rek mbokk taalibe yi kuy ñëw nga solennité boobu mag ñi joxoon ko ñu jox ko ko xorma ba ka ne mag ñi joxoon ñu jox ko ko euh, dëggu ga ko mag ñi joxoon jox ko te ñu jox béréb ba xorma jox béréb ba xorma xool parce que bésu bésu jaayante la lii bésu jaayanteeg suñu sëriñ la wan ko ne ñëw nañu xat na tàng na metti na waaye nag boo amul luy àddina amul lu yomb ci àddina màkkaa ko gën a jafe te nit ñi dañ cay dem kon nag bu ñu ñëwee rek tàllal suñu loxo déglu yóbbalu kilifa yi déglu message fóotaat xol yi surtout parce que dafa am lu fi jaar muy ay élection mu nekk ñagas ñagas ci diggante sénégalais yi te warul woon ndax xam nga Wilane dama leen ni yi fi àddina euh, yi fi àddina lay yem waaye yëfu yàlla dafay defar àddina def àllaaxira ndax euh, damay faral di wax ni toujours liggéeyal yàlla rekk a wóor ndax yàlla ngay liggéeyal mu fay la ba boo nee kun yàlla nangu yàlla ngay liggéeyal ci àddina mu fay la di la fay ba ci say sët ba ci say sëtaat ca say doom ca say sët loolu liggéeyal yàlla mu nangu rekk ko ko mën danga koy xool ci suñu kilifa yi ana alaaj njabootu alaaj malik waa leen ma c'est pas pour revaloriser kii que ce soit mais la alaaji Malick liggéeyoon ak yeneen magu diineem yi nawleem yi mu nekkoon mais tey moo fi law ba tey te la fi nekkoon mi ngi fi ba léegi de bu ñu nit ñi naan waa sëriñ si ñi am na ñoo xam ne dama koy faral di wax sëriñ si ñooy seen punching ball li américain yi tuddee punching ball mooy waa ah, sëriñ lu metti ci réew mi ñu ne sëriñ si la alors que sëriñ si la ñu doon def ba seen maam yi ba léegi moom la ñuy def yar nit ñi teg nit ñi ci yoon waaw dina na am ay quelques exceptions yoo xam ne ñoom ah mbooloo la nag il faut mu am ñu jàdd waaye li may faral di wax ne vingt pour cent sëriñu Sénégal ñi ngi ci yoon ñi ci seen maam yi tegoon ñu ngi ci seeni liggéey ñu ngi ci seeni tool ñu ngi ci seeni daara ñu ngi yar nit ñi ñu ngi yee nit ñi ñu ngi jàppale nit ñi parce que Serigne Abdou Aziz Sy Al Amine laa daan mës dégg mu ne këru diine mm, bu ca bu ca tarbiya génne njàng njàngale tarbiya ah leneen lu fa des kana des du fa kon nag eh, sëriñ si ñu ngi ci seeni farata quatre à quatre-vingt pour cent ña nga def la seen maam yi daan def jubbanti nit ñi jox leen eh, uti yi nga xam ne tey moo leen di permettre ñu yéeg ci xadaratu yàlla ba te loolu nag tarixa yi ñoo koy liggéey lool la yàlla dogal waaw yàlla loolu la yàlla dogal tarixa yi ñoo koy liggéey te tarixa cheikh kenn raw ko ci tarixa cheikh Ahmed bi amul kenn ku ko raw ci wàll fii ngay ñëw ci ëttu alaaji Malik bi nekk tilim ba mel nii lu kenn xamul ñu fóot la ba nga set fóot sa xol fóot sa pas-pas jubbanti la ba nga jub yóbbu la ca yàlla loolu moo am fii kër alaaj Malick kon nag mag ñi kenn mënu leen a fay yàlla ñu leen yàlla fayal waaw. Ah, li nga ubbee rek daanaka ne buñ ci yemoon danaka waxtaan bi fay amu njëriñ kesse ndax ubbi ngo ubbi bu yaatu bo xamne ni laaju guñu ko sax waye njëriñ la te da nga sax sax mi suñu lanc li ñu waroon laaj waye rek tay damay laaj soxna si pas passu tay ak pas passu bu démb dafa mel nak mbolo mu yokku na lool ci kër gi waye nak pas pass yu wuute nañu ni mag ni daan gëmee sëñ Babacar ci ak ñun ni ñu gëmee sëñ Babacar ci bokul lolou lan nga ci mëna fatéliku ci ndaw ñi pour wan leen ne pas-pas du luy magget pas-pas du luy yolam waaye dafa war a dëgër waaye nag ñu teg ko fañ ko war a teg. waaw euh, jamono moo changé jamono moo changé moo tax pas-pas dëgëratul mag ñi bu jëkk dañ la daan yar ci yaru diine bu jëkk diine amul bariwul woon folklore. bariwuloon folklore ndax dañ lay jàngal la nga war a jàng nga xam la nga war a xam sa heure euh, jàng sa tarbiya ñu yóbbu boole la sa benn cheikh mu rabbi mu mu tarbiya la jox la outil ya nga nekk ci sa farata bu jëkk distraction bariwul woon bu jëkk ah daan naa dégg sëriñ bi di ko wax sëriñ Abdou Aziz Alamine ne euh, waa gouvernement bi bu ñu discrédité kër sëriñ si ba nit ñi weddi leen dinañu bëgg a réew mi mu tëleen yaakaar naa ne loolu gouvernement yi war nañ ko xalaat ndax gis nga li fi mag ñi bàyyi sëriñ Babacar Si Cheikh Haj Malick du du du fi dañ ilaa abat man mooy sama conviction profonde mën na kayang kayangi xëy na jamono xaw ko yëngal waaye dafa sax reen ci réew mi te dara du ko fi génne nag illaa yow mi din kon nag ñoom ba ñuy liggéeylee yàlla ba pare yàlla nee na askay ndax moo fi indi ba tey jii koy ñu koy def ñuy def lii tey yàlla nag bu nee askay jeex na yàlla du weddi boppam kon nag gouvernement yi war nañu protéger këru sëriñ

di ñaan fu ne dugg nañ fa ñaan yàlla musal musiba ci réew mi te man gëm naa ni ñaanu kilifa yi ci lañ bokk li tax réew mi tey nii tey am na ko xooloon yaa trois mois ñu ne la réew mi dina yegg si fii tey nga ni mukk foogoon nañ ne bu élection yi jotee ñépp tojante bopp waaye dañoo toog ba yàgg mu mel ni ndox mu sedd guyee ci jaar kon nag këru diine yi état bi daf leen war a protéger parce que patrimoine lañu te patrimoine boobu dañ ko war a préserver parce que bu ñu ko préserver wul ba tegaat nit ñi parce que këru diine yi rek ñoo mën a teg nit ñi ci yoon maanaam tàggat leen tàggat seen ruux ba ñu nekk ay nit ba dara du leen këf loolu la mag ñi réussir ndax le Cheikh Hadj Malick dégg naa daan na wax ne bañ ko nee dañuy jël xale yóbbu école mu ne waaw bàyyi leen leen ñu dem école bu fajaree ma ma yenn ma nekk ak ñoom ñu dem école bu ñu ñëwee ma ma fanaan ak ñoom kenn du leen yóbbu te foog naa ni moom koo xale njabootam xam ni kenn yóbbuwu leen xam nga ban waarekat lañu lay laa dégg mu naan tubaab yi bu ñu yëgoon Seydi Hadji Malick la ñuy génne réew mi waaw ah, Taïb Socé xaw ma dama koy dégg rek waaw parce que li mu réussir ci njabootam yar leen jàngal leen Ubi sen xel parce que gis nga dama faral di wax ni nit boko xasse ubi ubbi xelam ken dotu ko note ken dotu ko wax lu ko jaaxal ci adina mais xana man mu ndaw mi rek man mu ndaw mi man wërna adina man gis ma luma jaaxal ci adina te pourtant du alal du dara mais yar buñu yar ci ma yar ci doylu ci bañ am lenen lu lu faq sama bët leneen lu tubab am faqul sama bët amul lu nit di am lu may xëcc loo xam ne daf may fàttaloo fàttali fàtt fàttali li ma ne kon nag loolu yaru kër diine moo koy def ci nit mooy fex nit ki niti mooy fexe nit ki jub mooy fexe nit ki jàng nit ki nekk un bon citoyen loolu yaru kër diine rek moo ko mun kon nag ñoom li ñu war a def mooy protéger kër diine yi ndax am na bay valeur yu ñuy véhiculer yoo xam ne ëtt yooyu rek lañ koy fekk te loolu ba léegi mi ngi fi la preuve xoolal jeune buy fréquenter daayira ak jeune bu dul fréquenter daayira nga xool seen comportement loolu rek firnde la ci jeune bu mësa a fréquenter sax man nde associé damay dugg ci bureau yenn saa yi damay xool njabootu kër gi ci seeni façon lay xamee ni kii njabootu kër gi la dugg na ci daayira ñu tàggat ko façonné ko de telle sorte ko bu ñëwee la koy intéressé mooy liggéeyam njàmb jàpp njàmburam paree dem ñibbi kon nag loolu euh, gouvernant yi war nañ ci bàyyi xel ah mu tarbiya nag bu jëkk ak tarbiya léegi bokkul ndax léegi agression bi dafa bari agression de toute part nag ñun arab yi dañuy agressé parce que ñenn ñi ay salafiste lañu la lu nu gëm tubaab yi dañuy agressé parce que ñoom foog nañ ne lu baax ci suñu réew yi ñoo ko war a yóbbu ak ñeneen ñi nekk ñeneen bu fekkul nga préparé sa ndaw ah mooy indi tey tarbiya yi dëgëratul ba pare xale yi xamatuñu kër gi kenn tarbiyewu leen won leen ni seen wasila bii du yàlla de waaye am na paar ca yàlla te am na lu mu xam loo xamul am na lu mu mën loo mënul loolu nag xam nga lu ko indi amatuñu ñu parce que bu njëkk daayira yi daayira yi lañ daan yare pas-pas yi tey daayira yi nit ñi ku ci xaw a am as rek daal di xaw a ëppale sa bopp daayira d'ailleurs li taxoon daaw ci forom bi ñu organisé ñu defoon daayira bu nekk dañu buggoon mu am activité économique parce dañu dem ba gis ne daayira daayira yi refuge la pour ñi nga xam ne amuñu lu ñu def ci wàllu koom-koom ñoo fa daan ñëw léegi comme loolu mooy li li ma dégg ñu ne eh, man dama ne le nouveau Dieu mooy xaalis naa nañ dugal volet économique ci biir daayira yi permettre njaboot yi ku ci nekk am loo jàpp ak looy xëy moo taxoon daaw ñu def forom bi forum un eh, daïra une activité économique ñu ci liggéey nak waaw ñu ci liggéey ah eh, ndànk ndànk ndànk rek dëkk bi dafa xawoon yëngu waaye ñu ngi ci ñu ngi ci ay projet inshallah on nak nag eh, njaboot gi war nañu wat xol tarbiyé mak ñi ndax dafa am goor gu am solo bi mu génné adina moy alaaji mbay kebe yàlla yalla yok leeram di bayum mawdo kebe bu kaw Kaolack jour bi mu wàccee liggéey Serigne Abdou dafa taxaw ne kii tey ci généralu cheikh yi la bokk te xam nga lu ko ko may tarbiyaam ah. waaye dafa def déplacement ndax xam na tey ki wàcc liggéey ni mu mel ci tarixa bi mu permet mu mu mu mu mu ñot ñoti ak tàngaay ba fa ne moo ñot ñoti dem ba foofu ndax ba mu ti ba ko tiimee dafa leen ah tey moom kenn ci généralu tarixa bi moo wàcc liggéey mais loolu tarbiya moo la koy may te nit ku nekk boo nekkee ci lëf war ngaa mën a aspirer xëy na man man nga mën de nga ni ah man kat bëgg naa mel ëllëgi si biir ñu ne kii ci généralu tarixa bi la bokk parce que nag kenn sasu la yaa sas sa bopp yaa ni man Tijaan la kër Alaaji Malik laa gëm diw mii mooy sama sëriñ dem ci moom tàllal ko mu jox la wérd ngay xëy suba di laazim di bàkk yàlla te la ngay bàkk yàlla du pour sëriñ ba pour yow la kon nag ki def loolu war nga mën a euh, bu la sa cheikh mu rabbi waxee nga bañ koo ŋàññ boo xamul la ci anam yëpp parce que réew mi réewum coow la nit ñi dañuy soow rek nit ku xam ak ku yenn yenn saa yi ma ubbi télé bi gis nit wax loo xam ne dama naan waa kii li muy wax ndax xam na ko ku diñuy ni li waji waxon waxoon ñëppay soow may soow rek ku jëg rek foog nga ni legi bo toge ci sa ruq tëdd ci sa lal ñu jox la ciébu jeun nga lek naan sa boisson bu sedd lu la neex wax te amna ño xamni ci réew mi ñu ubbi sen lamiñ ndax buñu ko ubbee safan rek lañuy wax buñu ko lu tang xolu nit ñi rek lañuy wax ñooñu nak war nañu am loolu mom xam na nuñ koy safara waye dana dana yo dana jafe safara ci réew mi ah mi ngi nonu kon nak tarbiya tay dafa am yoon tarbiya mag ñi la leen mayoon lañu am yépp tarbiya la tarbiya nag xëy na sénégalais le profane le sénégalais profane du ko xam waaw li lii sam baba daan wax la mu la mu saf ka ko macc ko xam tarixa cheikh boo ko nàmpee eh, di ko macc la mu saf yow yaa ko xam keneen ka nekk ci le profane du xam li ngay wax lan la ñun par exemple des fois ma wax dara nit ne ma yow li ngay wax ma ne non yow profane nga bokkoo ci ñun boo bokkul ci ñun doo xam li may wax lan la mais ki xam lan mooy tarbiya mais xam nga ni boo booy tarbiya xanaa xamoo ni euh, Wilane booy tarbiya boo booy tarbiya nekk ci yoon wa danga koy xam yow taal bi tijaan bi voilà yow da ngay xam ni yaa ngi ci yoon wi ndax day bari lu nekkoon ci yow lu dañ ci wàllu jikko ci wàllu euh, lu bari ci wàllu xol man dama gis sama benn xarit dafa naqaroon deret ah waxat mais gis nga bi mu jëlee tarixa bi léegi daf mel ni xar et quand je lui demande pourquoi mu ne ma ah est-ce que du bi muy wér ma ne ko waaw kon yaa ngi ca yoon wa waaw booy tarbiya ak di di def liñ la wax ci sa ci sa ci sa ci say euh, say euh, sa werd mais day feeñ ci yow kon nag nit ñi nañu delluwaat ci niñ la ko day def ci dafay am yow boo xalee sa bopp di nga xam ne am na lu changé ci yow waaye boo koy def nag te dara changé wul ci yow xamal ne am na looy def la nga du langa nga lañ la sant loo deful nag nañu delluwaat ci tarbiya mag ñi ndax loolu rekk ñuy jëriñ nag gis nga yi fi àddina yi yi fi politique yi fii la yam te dinga ci mbokk di ci ñaawak ak sa mbokku taalibe ñaawoo ceeg sa sëriñ ñaawoo ceeg sa communauté te du ko jar ndax ëllëg fii lay yem politique bi fii rek la yem lii ñuy liggéey nag daf ñuy yóbbu fii yóbbu ñu fële mag ñu yóbbaale ñu géew ndax ñun ñun kese kese kese yàlla daf ñuy daal di alak rek waaye nag il faut mu am ñu mu ñu rusi nag ndax ñun ñoo bokk boole suñu bopp ci kër Cheikh Al Hadj Malick donc gëm nañ ne ëllëgi si biir ñoom ñoo ñuy yóbbaale géew nag nañu dellu ci tarbiya mag ñi dellu ci éducation yi euh, réseau sociaux yi jamono metti na jamono changé na waaye gis nga boo saxee fi nga sax reen ya dafa solide ñun ci li ñu sax lan la woy wa lu mu waxoon sabab lu leen te yëngu ya booy booy booy wéeru naka la ko woy ba kuy wéeru kuy wéeru day see day seeti gannaaw borom dayo ya ñun danoo wéeru ci gannaaw borom dayo ya sëñ Babacar Sy ko waxoon waaw ku wéeru ci gannaaw borom dayo ya am nga wéeruwaay bu solide kon am nga li ci des yépp ay yu sew rek yooyu def la loo xam ni mën na defar sa àddina ak defar sa àllaaxira kon nag nañu nañu delluwaat ci tarbiya mag ñi loolu am na solo jërëjëf. jërëjëf si malik euh, kon mu wane ne kon war nañu bàyyiwaat xel ne tarixa bi du modd pas-pas du folklore te léegi taalib yi dafa am lu leen feebar bu leen dal mooy complexe boo gisee benn woykat bu mu boo sëñ Babacar nga defe ne moo gën milliards yi taalib boo gisee sa benn mbokk taalibe bu yiw doo ko sax xentoo référé doo ko defoo sax waaye boo gisee benn nit bu siiw benn politicien wala benn borom alal buy askanoo sëñ Babacar nga jàpp ne kii mooy modelu taalibe sëñ Babacar fekk juum nga sëñ Abdou nee na daana toog kër gi fees dell ak borom bi daraja mu jékki-jékki xuus ne nañ ma may ma wàcc ci sama mbokk yi ñu ne ko ñan ñooy seen mbokk mu ne mooy ñi amul dara te nekk ci suuf man ñun la amul waaw kon nag kon li nga indiwaat ñun ñiy féete ndaw war nañ jàngaat ne pas-pasu tarixa bi du modd du coow te ku la tàqaleeg sa kilifa wallahi la asim du la bàyyi nga dem daf lay téye def la njaboot boo daan jox sa kilifa da ko jox ci beneen anam boo daan déglu sa kilifa moom da ko déglu ci beneen anam boo daan topp sa kilifa moom da ko topp ci beneen anam waaye dana fexe ba defar ko ba gëm loolu loolu ba nga jàpp ne lii mooy li baax la nga toppoon baaxul fekk benn la rek <laughs> waaw benn la rek bu fekkoon dañ lay toppaloo sa bàyyiloo sa kilifa bàyyi nga dem rek kon ñu mun a wax waaye boo leen bàyyi rek ñoom ngay topp euh, soxna si kon fi ñu toll si jamono bii nga xam ne jamono bu lëndëm la euh, am na loo nga xam ne du ñàkk ñu laaj la ko muy kër gi nga xam ne ñun ñëpp ay njaboot lañu waaye léeg-léeg mu yëngu léeg-léeg mu am coow te loolu du du gàcce loolu du defo ci këru aqiqa ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam demoon nañ ba wax ne amul vie privée boo xuloo ak sa soxna boo xëyee waxtaanee ko ci biti kooku amuloo vie privée te Seydi Hadji Malick daf ko donn njabootam donn ko moo waral Tiwaawan seen conflit dafay fees ci kaw ndax ñoom duñu wax ci suuf wax ci kaw lu xew seen kër rek taalibe yëg ko seen yàpp daan doog ci mbaar mi ci suuf di waxtaan ba mu yàgg mu ne dañ leen di wax li xew ci kër gi ndax nogee na ko seq léegi nag soxna si am na loo nga xam ne que mën na gaañ taalibe ndax mooy xuus fenn fi ba yegg ci fenn fi ci ñaar ñoo nga xam ne que da nga naan astu kan maram selbe aminta kan maram selbe sëriñ Abdoulaye si al amin soxna astu kan ko jur سرين شيخ صورة سكان كجور سرين مصطفى أبو سرين شيخ سخنا سفي دم كجور سفي دم أمين تكان أمين تكان برام سلبي سرين مصطفى أبو سرين عبدو سخنا أيدا كان كجور أيدا كان أسمان كان أسمان كان أسكان أسكان برام سلبي سخنا ده أسفة تبارك الله سرين عبدو سرين عبدو سخنا أسكان كن دين تبوه برفت الله المورا رفت يوم مينغا خمنا يا كنغا فك كرجي سرين عبدو دان رجل يبري لان غاي دينك داو نيتاي بوسين خل دلسوات ني خمنا أملا لو خمنا دندم واي غاتي لا تتعلبه koo ŋàññi ci deru Seydi Hadji Malick rek jàppal na def nga defet bu rëy rëy rëy. Ah, waaw loolu de moom du fi lu bees euh, yaakaar naa ne dañuy dellu la la ma dégg ne Seydi Hadji Malick ko ñaanoon ne lu xew kër yonent bi rek dina xew këram ñi dëkk nag ñooy jàppante waaye buñ jàppante buñ jàppantewul sax amul sincérité. pour man parce que ki nga dekkal ak ki nga bokkal foog ngeen di kikante yenn say ndax ki day gisee ni ki gisee na le waaye man ci ben lenn rek la ko résumé sëñ Cheikh Tidiane si Al Maktoum ak serigne Abdou si Al Amin da ngay bokk nan ba nga bokk tour ken munu len takale mako wax nak serigne abdou aziz alamin amin ak serigne cheikh tidiane si al maktoum da ngay bok naan len mbaa nga bokk tuur leen loolu nak la mu umdu yépp a ci ah njaboot yi ñoo war a teey kër gi ku fi ñëw tarbiya moo la fi indi boo ñëwee tarbiya bi defal sa tarbiya la njabootu alaaji Malick séq sa yoon war wari caane ndax dafa am sama benn baay yaa ngi koy nuyu say njóoba cheikh day faral di wax ne am dafa yàgg ci kër gi xam naa ni yéen sax miinu leen ko waaye war ngeen ko miin ndax ku xam kër gi ku yàgg fi lool waaye dafa naqari deret te bëggul li mu am bëgg koo partagé kenn keroog dama koy tooñ ma ne ko Pa Njóoba mu ne ma ne ko ñun bàyyi la ci ñun nijaay la ci ñun ndax moom suma yaay ñoo yaroondoo biir Dakar léegi ma ne ko dama bëgg ñëw photo kër gi nga am ndax li mu cay yor kenn yoru ci même ñi sant si ay archive yu am solo ma ne ko dama bëgg ñëw jël photo yi photo waat leen rek delloo la ko mu ne ma duma ko def ma ree daal ne ko wa léegi te nga ma bolé ci testament yalla <laughs> na yéex dafa na ma mané ko bolé ma ci sa testament ndax bu ëllegi bo bu ñu gisatul nga kan ni li ndey astu la ko dencal kon eh, da fay faral di wax ni Pam Ndiobo Cheikh mané conflit ñi sant ci duma ci dugg buñ ko ne lutax tax mu ne ne bu ñuy juboo duñ la taggu da ngay nekk fii xuloo xeex def lu yone ya saaga sa morom xëy subar gis leen ñu ànd ku ne lëng sa morom mba akolaat sa morom mu ne loolu boo cay wax xamal li ngay wax lan la diggante kër Cheikh Tidiane si Al Maktoum ak Serigne Abdou sial amin ku cay wax xamal li ngay wax ndax boo leen yàkkee ñoom ñëpp dëbb leen ci boo leen yàkkee muy abdou aziz eh, ak cheikh tidiane boo leen yàkkee muy soxna sukkan ak sëriñ babacar si kon nag ku cay wax ku ne xamal li ngay wax te itam nit day mandu ndax ku ci ne ci taaliba yaa nga ci sa famille sa problème wóor na ma ni sa famille la ca nekk ca problème doo ko wax tey ngeen ñoo bàyyeeg sunu famille bu dee barke bee leen tax a jóg ñëw leen jël ko te dem te banoog sunu famille ndax nun siyeen si réeroowunu ku ne xam nga sa moroom ku ne xam nga fooy yam nag taalibe yi ngir yàlla ak yonenti bàyyi leen sunu famille ci li ci des nu lijjanti sunu problème sunu biir yéen seeni famille parce ñun li nu seq ak taalibe yi mooy tarbiya ànd liggéey kël Cheikh El Hadj ci principe la ñu ànd waaye bàyyi leen sunu famille bi ñu di ko saam ci mbedd yi baaxul te itam nag nee naa leen képp ku ci wax safaan jëmale kër alaaji Malick boo keroogee di nga ko digg ak alaaji Malick ndax am na taalibe yoo xam ni luy tas kër gi rekk lañuy wax njabootu biir kër gi ñooy wax safaan waaw loolu nu mu tudd yow nga ni kër gi laa gëm alaaji Malick gi laa gëm ndax alaaji Malick mooy constance bi waaw nga xam foo bokk yaay seet sëriñ bala neex nga ànd ak moom bu conflit amee ci seen biir seen biir yow ñooñu ñoo bokk seenub si lu ciy sa yoon ci sa biir kër am nga loo war a régler kër sa këru sëriñ tarbiya la njàng njàngale loolu la fi indi bu weesoo jëlal say demal feneen waaye bari na lu yàqu ci kër gi te njaboot yu ñoo ko yàq su ma doon ñaan nag na ñaan ñu jéem a teey ci wax ci tarbiya moo leen fi indi ñëw leen jël tarbiya bi jël li ngeen jël li leen fi intéressé ngeen jël ko te ngeen bàyyi ñi sént sii bu kii waxee jëm fii kii wax jëm fale te yow mi koy wax du la amal benn njëriñ yàq jaxase te itam nag du seen sakk du seen sakk ngeen jël kër gi di ko ëwti ëwtee ku nekk di wax di jottali sa moroom loolu du sagu kër gi nañu seet lii sagu kër gi li li wax bari ki demam kuma kuma interpeller mané ko ah, man di ci sama kanam xam nga lutax di duma ci wax mune am ah, mané ko sama kanam ma ngi gis soxna sukkan ak serigne Babacar Sy bu ñu ko tege suñu bëtt ci ñoom rek amna lo sañu sañul babu Babacar ni mu toll ah boo ko xalaatee rek biir këram gii di fi def leneen lu dul noonu kon nag nit ñi nañu màndu nañu màndu kër gi barkee leen fi euh, euh, euh, tarbiya leen fi indi ñëw leen tarbiya te leneen lu mu dul tarbiya génn leen ci ndax daf leen di tardeel amul lu leen benn njëriñ ndax nag ma wax encore une fois ñu sant si bu ñuy juboo duñ leen woo de bu ñuy waxtaan duñ la woo

de temps en temps il faut mieux employer conflit parce que des fois nit nature humaine moo mais non, mais du rien de du rien man ni ko fi man optimiste ba mu man am na yoo xam ne foog naa ni euh, kenn du ci yegg incha allah waaw ndax mag ñi liggéey nañ ba pare kon nag nañ ci mandu ñëw def seen tarbiya dem seeti sa wasila ñu ànd liggéey liggéeyal mag ñi ba ëllëg ñu am seen ngërëm ñun rek ñu fi nag ñi ngi gërëm ñëpp sant ñëpp di la gërëm yow mi Wilane ah di ñaan yàlla yàlla ubbi waat yeneen i xeewal ba yàlla dëgër nga xëy dëgg la waaw ah ndaw ñi de dañu dañu xaw a yàkkamti sama papa daan na ma ko wax yéen ndaw ñi dangeen a yàkkamti te àddina xëyul sotti benn benn la tepp tepp ba keroog mu yéeg ndaw nag man li ma xam ci ndaw mooy jàng ndaw day jàng ndaw yaa xam école ngay jàng yaa xam métier ngay jàng yaa xam looy jàng mais ndaw dafa war a jàng parce que gis nga toog waaw awma liggéey awma liggéey mais boo amul liggéey formation nga am parce que loo Sénégal loolu moo ko yàq dañu naan ndaw yi amuñu liggéey mais est-ce qu'ils sont formés est-ce que am nañ formation est-ce que am nañ métier Euh, li la koy won rek fan yee passé dama am ben poste buma def ci internet bi parce que suma ma ay opportunité de travail man tout le temps dama koy poster ci suñu réseau yi ci groupe yi nga xamante ci laa bokk yi pour ma gis ben annonce buñu don annoncer né wa école japonaise dañu am collaboration ak euh, école euh, canadienne bo xam day former ay mécaniciens pour ëllëgee ci parce que fofu dëkk tuba bi amatuñu ku leen liggéeyal bu ñu paree ci formation bi ñu yóbbu leen Canada alors am benn ndaw bu ma interpellé xam lu ma laaj ñaata formation bi ma expliqué ko ba pare mu naa ne ma at la ma ne ko 3 ans chii 3 ans bari na de ma ne ko waa ñetti at ci giiru dund moom bariwul de parce que yow mënoo bàyyi trois ans yooyu bañ a jàng bañ a dem dawal Jakarta bañ a def leneen ci

boo eh, amoo bu fekkee ni mënoo amoo mënoo jàng ci école bi nga dem def formation métier boo amee sa CAP yaa xam brevet boo xam nga tey bu ëllëgee si biir bu la nit bëggee jàppale dana la mën a jàppale ci lay gën a yomb waaye xam nga lu gën a metti kaay damaa bëgg liggéey lan mooy sa diplôme ngay taxaw di xoole amoo métier léegi da ngay dem ci àll bi li ma fa gis c'est un phénomène bu inquiétant da ngay gis xale yi dañuy bàyyi école dem di dawali Jakarta mais bal leen ma dem wax leen ko man pour man dawal jakarta du métier sama baat ca kaw nag xam naa ni ñu bari dinañ ma saaga je m'en fous d'ailleurs mais dawal jakarta du métier mën na la dépanner pour quelque temps mais demal nga jàng métier wala bu fekkee ni mënuloo bañ a dawal jakarta nga xëy suba dem jàngi métier bu ngoonee nga dawal sa jakarta pour am ci sas weccit boo defee ñetti at nga am sa diplôme mën a wuti liggéey bu baax mais dëkk ci bàyyi sa liggéey bàyyi école bàyyi liggéey pour Jakarta man jàpp naa dawal Jakarta du métier. weesoogul ci yow. mais jàng moo weesuwul ci kenn man sama age man man y a de cela cinq ans inscrire naa dem université pour def benn certificat njàng du wees nit ki dafa war continuellement di gis nga njàng ak tarbiyaayam du jeex. Jang, ak tarbiya sama mbok mi ma nga France la dëkk ma nga ne yeen say yi dafa ma koy wo mu ne ma ma ngi jangi wala de de jang alors que ñun ñep ay mag lañu jang ak tarbiya du jeex ila abad tanka yaangi dundu da nga war di jang da nga war di gestu. tanka yaangi dundu da nga war di tarbiya kon nak xalé yi bo ñu réew mi man de li ma gis nii lii développe lu réew de jenes bii ma gis baal leen ma de li may jànkonteel te man dama leen di fréquenter baal leen ma bëgg nañ lu yomb foog nañ ni cest à que yi am solo ci dund dañ ko téyewool yi ñàkk fayda yi yu ñàkk fayda rek la ñuy def am na sax moo bu ñu génnee léegi toog muy dox xaw ma man loolu laa xamul ça veut quoi dañ ko moomale sëriñ si te sëriñ si tooguñu dox fan mo am tok muy dox. kan mo mës tok toog muy famille bi ma bok keur arrangement yi ñeppay liggéey. ah ci ñi ma xam. man nak tok muy dox la formule bobu la xam bëgg xam fan la ngeen koy jaar parce que man bëgg na ko def man itam tok muy dox. parce que man ba ma juddoo ba légui xawmo tok toog muy dox damay damay liggéey de donc aujourd'hui je crois que cette formule yoy ñi génne ay tok muy def yu yomb yo il faut arrêter lolu du dem. réew la koy développé mooy ña fa dëkk ñun duñu burkinabé duñu malien kenn duñu ko développé réew mi ñoo koy développé suñu bopp maintenant foog ni état mën na lépp itam réer weesuwul loolu état mënul lépp état li mu mën man baal ma filaan tey buñ ma laajoon jox ma réew mi xam nga lu may njëkk a tas kudd kudd kudd ba ci université loolu laay njëkk arrêté parce que amul benn réew bu état di jël en charge à l'université nit ñi di leen jox lek di leen jox ñu tëdd di leen jox fu ñu naan fuñ ko teg amu fen <laughs> wala déet non ñun ñi jàng ci université yi tubaab bi dañoo fay fañ doon dëkk ñoo ko doon fayal suñu bopp liggéey bu nekk def nañ ko pour def ko pour am pour ah mais fii ngay gis état yore plus de cent vingt mille étudiants di leen jox bourse loolu fu mu am amul fenn ci adina pour bois de développement man suma doon sénégalais président système kudd bi laay njëkk arrêté ñu jox la néeg ngay fay 500 francs di ca añ di ca reer di ca ndékki ñu jox la néeg nga cay branché say frigo di jaay glace ñu jox la néeg nga wut photocopieuse def ko ci biir di ko branché di ko faye système yu yomb yooyu am ci réew mi ñu bëgg euh, euh, euh euh, légaliser parce que a. am man jarna université xamna xew c'est une réalité état limuy garantie citoyen moy bo démé ba am bac pare na ci yow li ci dess sa bo len nga dem université et puis université du dépotoir dépotoir du Sénégal actuellement université Dakar bi dépotoir la xalé bu amatul lo def né na inscrire en attendant Madame France ah, inscrire ndax ma mais c'est le système scolaire bi la wara xolat pour man. parce que loolu mooy base rew parce que mooy base une actuellement ku xol suñu éducation deug la université yi bari na dëgg école yi bari na mais am système bi dafa xawa raté kon nak buñu bëggé liggéey comme ils disent participer au développement de leur pays nañu former formation dem chanki dem defi métier te njang mi dafa changé par exemple na nga daan jangé bu njëkk légui dootu ko il faut ñu xol système bu adapté bo xamné aujourd'hui Sénégal nit ñi euh, mën nañ bu ñu démé euh, par exemple man en tant qu'étudiant bi ma njëkkee dem dëkk bu melni Canada mais sama première année je l'ai complètement raté parce que nit ñi jàngale ci suñu réew yi ak fofu nañu jàngee du ben et yooyu yëpp war nañ ko tëggaat ci suñu ñi suñu suñu suñu suñu suñu système scolaire bu ñaareel bi yar xalé yi yàlla na bu ko budget bi état bi mëtoon tay waron na sénégalais bu mag bo amé 18 ans yóbbu armée parce que dafa am benn benn éducation civique bu manqué les jeunes sénégalais ñu yóbbu armée nga xamni ni sa dëkk daf la wara jaral nga bàyyi yenn def. israéliens yi ñoo ci gën a garaaw ñoom moom sa ça se comprend foofu ku dem ba si ba ba bac am 5 ans yoo xam ne tu la doon à ton dugal la ci armée bi ndax man li ma gis ci yàqu-yàqu li ma gis ci laisser aller xëy na bu ñu duggee ci armée bi mu xaw a tane tuuti mais jot na éducation civique mooy sa réew mu jaral la nga nga nga bàyyi lu bari nga def sacrifice waxuma li nit ñi def euh, opposant ñu sanni xéer naan réew mi jaral na ma dé ay non ça tu le fais pour l'opposant ce que je dis moy nga def pour ce réew éducation civique mo koy joxe ñu yar nit ki ba réewam jaral ko dara je dis souvent américains Joe Biden génnoon ne souvent américain bu né francs kenn du poser wu question fu koy dougal parce que dañ naan réew mee soxla on va mettre notre argent mais Sénégal tey def ko ñooñu ne ni hein, dañ koy lekk hein, ku ne ngëlalali waaw du ñu def dara kon nak eh, eh, rew jeunes yi aujourd'hui waxuma la xoolaat sen bop mais comme j'ai souvent dit parents yi am nañ ci responsabilité pël Fuuta yi ñu ngi jë mali mi pël dañu fayda dañuy ñëw ci rew mi liggéey il se lève à 4 h du matin duñu nelaw bala 8h ak miette yuñ leen mëna fay ñom ci lañuy korkoral ba am liñu am mais pourquoi les jeunes de ce pays ne peuvent pas le faire ah ku ñu ne kaay jaay café nga ne duma jaay café ku ñu ne kaay jaay mango nga ne duma jaay mango mais parce que yéen leen xajal seen yàccaaral moo tax tey étranger bi jóge dans la sous-région ñëw dugg si si dëkk bi liggéey fi yow yow mi nga romb ko di ko ciipato te kooku defu la dara moom dafa ñëw pour liggéey rek il faut arrêter cette xénophobie-là. On est, on est tous des Africains. Xénophobie, Paul Foutala, Linini, Afrique de l'Ouest. Nous sommes beaucoup de gens la Côte d'Ivoire ba Sénégal Guinée Guinée Mali euh, Burkina Niger on est tous le même peuple parce que c'était les empires avant ne sommes pas beaucoup. Donc, nous nañu arrêté cette xénophobie bëgg jël beaucoup émissaire yi naan pël là saisis ça. mais takk leen seen digg liggéey comme ñëpp boo leen defoon li ngeen war a def tey doo leen seet ndax kii pël la wala euh, susu la wala leneen wala il faut arrêter man moi j'ai jamais été d'accord tu discours parce que et puis j'ai dit <laughs> ma ne man leen faites attention vous les sénégalais parce que yéen da ngeen bari ci àddina bien. ah yéen a ngi fu ne alors quand vous dites euh, hein, euh, regardez tous les sénégalais qui nekk ci <laughs> ah voilà ah voilà ah voilà, ah, les plus grands voyageurs de l'Afrique c'est nous ba pare ngeen di naan keneen euh, xaw Ah, lan euh, pël Fouta et puis ay moi je ne crois pas à ces choses là.

You know, on est tous des mêmes peuples, que, que tu viennes du Mali, de la Guinée, faut on est tous des Africains de l'Ouest. Et on doit se serrer les coudes. Parce que nous, si nous serrons les coude en Afrique, fi ñu nek mais ñun duñu ñu dem dañuy mës di note tuba bi dañuy note rek la abat kon nak nañu bàyyi discours yu xénophobe yooyu te jeunes revenir à la raison xam ni àddina bi dara yombul té réew mi buñ ko développer wul keneen du ko développer, kon nak lay développé suñu réew nañ ca taxaw am esprit civique mën a jox suñu suñu doole suñu réew sans euh, xalaat ne dañ cee war a am lu ñu ci jox nit li ngay def danga koy def te yàlla tax da nga koy def te sa réew tax kon nag mu ngi noonu lan la yàlla def jàmm ci réew mi def jàmm ci lépp nguur gu bees gi fi ñëw yàlla euh, oyofal yan bi taxawu leen dëgëral leen ndax ñoo yanu suñu reer comme je souvent te bu reer bi këppoo duñu reer kon nag duñ def lu dul ñaanal leen ndax reer bi ba na këpp gaal gi bañ a yëngu yàlla li nam namm ci réew mi yàlla defal leen ko defal ñu ko kon nag salaamaaleykum wa rahmatulah jërë ngeen jëf loolu mooy sunu jataay ak Seyda Soxna Ndeye Astou Sy Al Amine gis ngeen ko rek ci waxtaan yu am solo yi ak point yi mu dugg yëpp ndeysaan. benn bu ci nekk rek jaroon nañu fanaan fii ndax nit ñi mun cee jëriñoo ndax moom waxam lépp yàlla dafa dogal dafay jëriñ surtout ndaw ñi ndaw lu koy déglu dinga xam fan ngay teg sa tànk ndax bu yàlla dogalee nga juddoo ci këru diine juddoo ci kër gu këru këru borom yi xam-xam yaru ci këru mbooloo jóge fa jàng àdduna jàng diine fa tabaarakallaahu da ngay mën a wax ak nit ñi nag fa tabaarakallaahu kon yàlla ñu yàlla may dégg ak topp ñu ma ko ñaane it ñi yàlla dénk réew mi yàlla leen yàlla may ñu gouverner ci jàmm waaye bu ñu futtiku futtikiwul changer jàppale leen ah yaakaar na yëf yi du baax parce que ñun alternance bi ci ñëpp la war a doon kenn ku ne jàppale na yaay jomaay kenn ku ne jàppale ne dootoo Macky Sall jomaay nga rek réew mi mën a changer waaye bu dul loolu dara du baax. yalla ñu yàlla may dégg yàlla may ñu top gère général ba nga non le 21 avril la ci eutu Serigne Babacar ci keur Cheikh El Hadj Malick di ci wo mboolem julit yi soxna ci dem na ci appel bu am solo ñu fexe ba défarat suñu pass pass ba nga xamné la mag ñi amoon ci serigne Babacar ci bu ñu demee Tiwaawan daanu ko am waye nak ci sunu pass pass rek lañ ko mëna amé wa salamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh